gis nañu ñoo xamante ni tey dañ doon eh, xëccoo ngir jot njiitu njiitu ngir jiite réew mi ku ci mel ni El Hadji Issa Sall te yaakaar naa ku mel ni Issa Sall moom eh, bu ñu bàyyee xel ci ay discours moom bokkoon na ci ñu dàqoon ak ñaañi Macky Sall ba wax ni sax eh, maanaam ku ne war na war a mën a yorewaat réew mi ba mu des Macky Sall fii nga xamante ni fi lañ ne sax ci diwaanu Tamba euh, jamono yi muy campagne ñi nga xamante ni ñoom la doon àndal ñu nekkoon sécurité am amoon na jàmmaarloo bu métti bu fi amoon ba am ko ci ñàkkoon ba xenam ba ñu jàppoon ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo yore woon sécurité te sax ñi nekk ci euh, maanaam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti boobu ndaw ñi jotoon nañu àddu daal di woon wax ni Euh, moom Issa Sall jotu mosuleen a seeti benn yoon ginnaaw bi loolu amee tey jii ñi gis ko mu daal di dem euh, ànd ak njiitu réew mi moom ak Aïda Diong yëpp ci semaine bi ñu génn euh, dem nañu ànd ak njiitu réew mi Macky Sall yow nga xaritoo ak Macky Sall itam est-ce que gisoo ni que ni daal maanaam moom itam war na di xool maanaam léeg-léeg balaa muy jël décision di nommer nit muy xool tam aussi nit ki mooy kan. waaw euh, monsieur Ndoye Mangi, ngi <coughs> remercier ci information yu dëgg yooyu Issa Sall moom lu mu def yëfu jaam la def on appelle les choses par leur nom comment se fait-il que yow nga nekk député je crois c'est un député nga nekk dans un parti d'opposition yow nekkati li nga doon yuuxu di di saboter Macky Sall yëpp ci suuf yaa ngi négocier ñu jox la un poste de responsabilité Macky Sall nag moom mooy yor signature ku mu neex mu signal mu signal la ku neex mu signal la ah bismillah ma ko mais il va trouver des hommes aussi compétents sinon plus que lui dans l'APR ñun ñoo ngi fii nag mu mu naaj ñoo ngi fii mu guddi ñoo ngi fii te it hier ça damay toog man je me suis dit la dernière fois quand il y a eu les événements là dama ne est-ce que du àq ñu mel ni man moom moo dal nguuru Macky Sall parce que mënuñu fi toog monsieur Ndoye ma wax la benn affaire di koy ñafel ba nga xamne ne gi sax sa doom ñolay saboter ablay sabote Ablaye Macky yaa ngi toog ba tay de man sama dom bu jigen bi sama sama chat bi daf may ton fi mu naan ma ablay Macky yaa ngi ba tay de president la ça ça fait mal au cœur même si c'est un sabotage gentil entre père et fille ça fait mal au cœur nous nous voulons travailler nous sommes des travailleurs moi je n'ai pas envie qu'on me donne de l'argent c'est gentil de m'envoyer de l'argent mais je n'ai pas envie qu'on me donne de l'argent. J'ai envie qu'on me donne un travail bon. Je peux faire beaucoup de choses pour mon peuple. Lola.